suba teel fajar fa la ñuy bàyyi suñuy xale bala ñoo demaan bala ñoo demaat ñuy noddu gee. bu ñu xëyee ñëw ci marché bi di defar suñu ay sër ak suñuy dara ak suñuy melikaan. la nekk ci la ni xëy ci daal noo nii rek. seen liggéey di faral di defub diir li ko waral di ca dessin ba ak ca ràbbin ba moo ne suñu noppee njëg yiñ koy jaayee du leen jural benn bénéfice. rob yi moom léeg-léeg moom dana diiram moom léeg-léeg ñeenti fan baa juróom nga mën cee defar ñeent boo toogee si kër ga. liggéeyu loxo metti na trop ndax sër yi ñu ngi dañ ciy def ñeenti fan te fi noonu nii 1500 lañ koy jaayee wala 2000 dara yi ñaw day am 4 jours dañ koy jaayee 7000 xam nga loolu daanaka taxul ñuy wax. liggéey bii di ràbb doon lu ñu nemmeeku lool ci biir Touba loolu tax na ba ñeneen dañuy jóge ci yeneen i gox. di ñëw di jënd si li nga xam ni mooy sër yi ak dara yi ñu ràbb. ngir rek def ko seenum njaay. dañuy jaay am guro waaw waaw am na ñuy jaayaat moom ñu ñëw ci ñun di jënd si non yi jóge sa région yi moo ëpp moom même waa Touba am na ñuy jënd pour génn Touba dem beneen dëkk jaay.